يا ربي بالمصطفى wa loolu nag wërta yéem kenn ku xam diggante sëriñ Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadul Amin kon lii luy fedd la amoon démb rek la kon mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Amin ñu ngi sant di gërëm ci ni nga xam ne noonu nga jàppee sa doom ji ngir yéene ko aw yiw ngir yéene ko lu baax ndax nit ki képp ku ni la kaay ñu liggéeyal Serigne Touba bëggal na la lu baax nga tànn ko ci njabootu Serigne Touba tànn ko njabootu Cheikh Mouhamadul Amine ànd ak moom liggéey bu rëy bi loola ci turu sëriñ Moustapha ak njabootu Serigne Baara gépp njabut Serigne Baara gépp nga ko defal kon ñu ngi la ci sant di la ci gërëm ñaan sunu boroom mu guddal saw fan dëgëral la ba lii nga xam ne am nga yéene liggéeyal ko sa maam te doyloo ko ci ànd ci ak moom yàlla na ci sunu moom defal lu kaw seen jort ci bark Serigne Touba maam am nañ mbégte moo xam ne sunu làmmiñ mënu koo tudd muy la doxoon diggante sëriñ Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadou Lamine ku teewe jataay bii xam na ni loola nga dundalaat tey kon ñu ngi ci sant bu baax a baax Serigne Bassirou nag ñun ñii nga xam ne ñun la bokkal Cheikh Mouhamadou Lamine ñu ngi lay seereel ni ku ñu naw la ku ñu wóolu la ku ñu jàpp la ci taxawaayam ci pastéefam li nga xam ci moom ba jox ko lii loolu rek la njaboot Cheikh Mouhamadou xam ci ñoom amul lu muy bëgg amul lenn lu dul liggéeyal sëriñ Touba képp comme gisit ñu lay tuddi tudd sëriñ Touba moom dalay lay jàppe seen Serigne Touba. kon noonu la àndee njaboot Cheikh Mouhamadou Lamine kon njaboot gépp ñu ngi lay seela taxawaay boo xam ne am na ko fii ci guy mbind amu ci kenn xaar ma yàlla ñëpp la leen a jàppee jëmmi Serigne sëriñ baara comme gis si njaboot gi jëmmi Serigne Bara la lay xoole noonu la ànd njaboot gépp bis bii nag biig la ma woo ni ma day bëgguma kenn yëg ko waaye yow mënumaa def loo yëgul waaye bu fekkoon yëgle na ko li ma la mën a seeral mooy kenn du fi xañ njabul suñu baar gépp dana teew waaye xam na ni loola du sa bëgg-bëgg ndax bëggoo mu xumb bëggoo mu la nga def mooy da ñëw di seet sa doom nga di nga def rek loola kon moo tax mu yemale ko nii waaye nag mu lay xamal ni lii lii nekk ci sunu kanam ab junj la ngir jéem a fésal li nga xam ne mooy yéeneem ci seen jëmm ji ndax sa jataay bi waralewu ko jataay sëñ Abdul Ahad kon sëriñ bi nee na mi ngi lay sant di la gërëm ñun tamit ñu ngi lay sant ci turu njaboot sëriñ Baara gépp di rafetlu jataay bi ñaan su borom mu yàgg te liggéey bii nga xam ne li yaa ngi ko yore mu doon liggéey bu metti liggéey bu diis liggéey bu rëy yàlla na la sëñ sëriñ Touba oyofal yan bi ba nga eggale ko fa nga bëgg ci barke sëriñ Touba. loolu daal kàddu la yoo xam ne mënuñu ko woon bañ mu doon kàddu cant ak kàddu ngërëm li la ñaanit nga ñaanal ñu sëriñ Basiiru suñu borom aar ko sàmm ko musal ko ci mépp ndog ba yéene jii mu am ci liggéey sëriñ Touba ndax amul benn bëgg-bëgg bu du liggéey sëriñ Touba ñun ñii nga xam ne ñun la mbokkal sëriñ Bara day ku ñu naw la ndax taxawaay bii mu taxaw nekk ci bopp njabootu sëriñ Cheikh coro loola doxul ak digganteem la ko war ci xam-xam ci liggéeyal xam-xam ku ko xam ci lool nga ko xam amul beneen yitt amul benn bëgg-bëgg te loola moo doon bëgg bëgg Serigne Touba ci loolal nekk ci lay xëy ci lay gont ak lépp loo xam ne gis na ni lii boo ko defee dana ci am ngërëmu Serigne Touba ma nga ca kon Serigne bi loolu rek la moon bëggoon ko jottali di sàkku nga ñaanal nañu ko moom it suñu boom dëgëral ko ba li mu yéenee liggéey moom man koo matal lépp ci barke Serigne Touba kon ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm di jégalu kaddu yi xam na kaddu yi ñu bett la rek waaye kaddu yi dañuy feeñal suñu yéene ak suñ mbégte ci jataay bi rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu nuyu bu gën a tedd di sant bu baax ci jataay bi di la sant di la ñaanal sama borom yàggal la fi lool ah man nag sëñ Mor taal ñu naan ma Mor Ndaak taal ah fi laa juddoo yaroo fi eh, muy Daaru Salaam sama maam El Hadj Mor Tall la tudd sama baay di Ngañ Tall. njëkk doon administrateur civil ma doonoon administrateur militaire ah keroog barki démb nag la xam ne li may yëg mënuma ko bañ a wax barki démb moom la gisee télé ñu lay laaj ci sëñ Saliou ngay wax ci laa ni man de la ma ñaanoon sëñ Saliou mu nangul ma ko maa ngi door a xam ni kon nekk na ndaxte damaa sol tenue militaire laa ñëwee ak samay moromi soldaar ñu ñëw ci kër sëñ Saliou di ko siyaare di ko ñaanoon ñu ñaan bopp noppi ma ne ko nag sëñ bi man de dama bokk ci yoon yu juddoo fi yoroo fi waaye damaa am yéene bokk ci liggéey liggéeyu sëñ tubaab bi te mécc mii ma ne bëggum moon ma cee nekk di ki ma bëgg nga ñaanal ma ma jóge ci mu ree ma daan ma sàllaaw dina nam de daal di jël téeméer téeméer yañ dajale woon dugal ko ci poose bi jox ñu ay suuf suuf loxo si suuf ba ñu demee teguma ci weer ñu laaj ma société bi ñu naan Viga assistance woo ma lu ma ne dañ maa soxla def ma directeur technique muy société sécurité bu ñu naan Viga assistance ma def fa ñaari at euh, ba mujj la ma doon julli di ñaan sëñ tubaab boole ma ci titre foncier am loolu sotti ma jënd fii kër indi fi sama njaboot ne fi kon bu ma ñëwee yàlla boole ma ci lii nga xam ni ah Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko woote muy ab liggéeyam damay am mbégte xam ni la ma ñaanoon sëñ Saliou nekk na ak mën na ma dégg ni fa nga jaar ak moom mu yor la jàngal la ca dëgg-dëgg damay jàpp ni rek looloo ñaan googu moo nekk ba ma am ci mbégte lool di yeesal rek sama pas-pas sama yéene ci sama xam-xam ak sama lépp rek war fas yéene ànd ak yéen liggéey bi di ziare rek nuyu nag sëñ Bass Coro mi nga xam ne ba ma ñëwee ci yow moom nga ma booleel boobu ba léegi it macha allah ma gis ci moom li nga xam ni moom la gise woon ci way jur yi ci mag ña mu ni ma ko gise ci yow noonu laa ko gise ci moom kon ñun amuñu lu dul rek topp ci seen ginnaaw rek dooni taalibe rek ne suñu maam topp woon seen maam ya suñu maam jóge kajoor ci kër alaaji Malick wettili si sëñ borom gaawaan noonu moo ñu dugal ci yoonu murit kon boobu ba léegi ci loolu lañ nekk fas yeneen ne rek topp seen ginnaaw di leen ñaanal rek tey ñaanal jataay bi yëpp suñu borom tabaaraka wa taala Eh, may la ndam ci liggéey bi ndax liggéey bii kat ku xam si ab Ahad Mbacké ci œuvre xam ne liggéey bi sab liggéeyam liggéey bi boo ko jëlee sa yëf la soo ko jëlee sa yëf la waaw ndax sécurité kaaraangey dëkk bi xam naa ni moom ca dëgg-dëgg yow dong yaa ci man dara yow Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaw kay maa ngi sant nag di jéggulu rek ci kàddu yi ndax ndong rek laa jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëñ bi ñu ngi yëkkati kàddu yu mbégte yu rëy yoo xam ne ci sunu xol lañ ko tibbee bi ëmbaloon nañ la cofeel gu rëy goo xam ne jortoon naa ne buñ ko waxee balaa yàgg ñu teg suñu bët yi may wax ak yow ci sëñ Fallu mi ma ñetti fan ñeent ñu bokk benn jataay bi bii ci waxtu yi rek sama sama genn kilifa woo muy sëñ Xaadim Mbay oustaz ne ma daa bëgg ma am fu ma ko yóbbu njaareem te ñëw ci takkusaan si bi ñu wàññi ko ba waxtu wi di jot ci la ma sëñ bas mi woo ne ma sëñ am sa tukkat daf maa wax ne ma dafa bëgg a jullee si suba te mënumaa nekk ci mel ni mbir moo doon dara ma ne ko waxtu yi sax ci jumaa ji la ma daan fekk waaye dana ma fekk sa kër bu soob yàlla ma waral ma ñëw ci jotaay bi waaye di la seereel ne sëñ Abdou Lahad sa baay ñun ñi nga xam ne génération bii nga xam ne moo ñu musal ci xew yëpp yëpp yëpp amel nañ ko njukkal ñu la nag dalal nañ la xel yow ñu ko yow dalal nañ la xel wax naa ko sëñ lu barki dem ne naa ko man bëreetuma lu may jaxasoo kilifa waaye sa Amsatu ku ma naw la ku ma bàyyi xel la ma jumul mosama ànd ak sëñ Bas ñëw sa kër ak takkusaan fekk la fee ca sa sa sa sanc boobu waaye keroog bi wax naa ko li ma jàppoon ci yow loolu laay dund ci sama xol nag fu ñu mën a daje di la leerale nag sëñ Bas mi yàllaa ñu boole muy nit ku baax fu ma mos nekk rek fekk na ma fekk na yi fu ma mos a nekk rek fekk na ma lu ma mos a nekk ñoo ko ànd moo waral jataay bi ñëw ànd ko tey lu mu mos a nekkit maa ngi ca tey suñu borom dogal jataay bi waaye ñu ngi lay ñaan ci barkib sëñ li ngay yéene liggéey sëñ lépp suñu borom kàttanal la ci sam xel ak ci saw fit ak say xalaat ak ci man-man ci saaxir lépp suñu borom jox la kàttan goo ko àggale ndax xam nañ ne ku naw ku ku day jàmbaar lool waaye wóor na ma ne bu ngeen tolloo bu ngeen fekkante woon ci keppaar Sëriñ Tuubaa fu mu teggee tànk nga mën a teg ci nga mën a teg ci pegg ba loolu moom xam nañ ko ci yow liggéey bu mag bii ngay defal sëriñ si fii ci Darou Salam mbokki barga ku ne xam na ne ak njàmbar mëntu wees foofu te diggante bu yàgg bu yàgg nga fay def doon a dellu te booy dem mbokk yëpp la fay fekk man nag li ma gën a neex ci sa jëmm ji dinaa la ko wax man yàlla dafa dogal damaa juddu sëriñ Abdou Khadir moo ma ñaan boromam ndax ñaan boromam mëntu weesu nit koo xam ne ba bàyyi ba ndeyam di dem kër baayam yaa ko fa yóbbu loolu fa la tàmbalee woon li ma juddoo it mu ne nañ ko tuddee sëñ Daam Abdourahmane dana fa nekk kon ma kon ma kon kon kon loolu kooku ama ñaan boromam ma gis sag jonjoo ak yenn jëmm ci njabootu sëriñ Abdou Khadir muy sëriñ Sidi Abdou Khadir dama xam lu mu jàpp ci ci ci yow lu muy yëg ci yow loolaay saw bos li ma jàpp ci yow lépp lépp foofu la soxla ko ma di la ko tey jii loolu laa ne woon danaa ko dugal ci kat la ca topp mooy jëmmi sëriñ Basiru ji ñu ngi sàkku ci yow nga ñaanal ko yàlla ko ami xalaat la ku am yëg-yëg la ci sëñ Tuubaa sëñ bi rek lay noyee man li ñuy jaxasoo génnul sëñ Tuubaa maa ngi moom mënuñoo weesu sëñ Tuubaa it maa ngi moom dañuy waxtaan nag ci ci sëñ Fari mu di la tooñ ci sëñ Baara nga di ko tooñ ci mu di la tooñ ci sëñ Fari di ko tooñ ci Baara mu dee di lëkkale ngir dajeguñ dee ci keppaaru sëñ Tuubaa doon fa liggéey sëñ Tuubaa loolu lu leer ko sëñ Fallu ne ko jógal wal nga ba demee nga fëgg gili ni ci tukkeem boobee noonu bi mu agsee Daaru Mbàkke bi mu dikkee dellu loolu sëñ Abdou Khoudoss Mbàkke yor moo ma ko nettali bi mu dikkee delluwaat na ci sëñ sëñ delluwaat na ci sëñ Fallu ne ko wër naa taal yi waaye fa ñu wax góobee nag dem naa fa taal ba fa sëñ Tuubaa taaloon noonu dara soppi ko ba tey loolu sa bàyyi ko fa seeroon ci ëtt boobee ndax fekk na booba ñu fay nodd waxtu juróom yi di fa waxtu juróom yi ñoo ko fay noddu te gis na ne mbooloo mi ñëw ci jumaa jàkka ji ñëpp bu ñu agsee dañuy julli ñeenti julli waxtu bu ñu noppee teg ci ñeenti tàkk ci tisbaar ji noonu ñu koy toftalee ci jumaay Tuubaa jeeg yi ci aju booba loolu laa fa xewoon gis na taalu jàng yaa ngi fa daan riir booba loolu nag sëñ Blaat sa bàyyi ko seedoon kon boo ñëwee fii ci keppaaru sëñ Bara di xeeñtu mbirum sëñ Tuubaa ñun ñi fi fekk moom xaj na tëri nañu wax lool waaye dinañ la seeral li ñu jàppoon ci yow nag moom ñu ñaan suñu borom musal la te aar la te yiir la ba sa yéene ci sëñ Tuubaa àgg ndax saa yu ñu doxee ba dégg ci li yàggu dégg nañ ko wax ci yow loo xam ne bi biñ koy toog naa ci jotaay bi ma ko déggee ñetti ñetti nit ñoo xam ne xam naa ne jaxasoo yow xamuñ la it nag waaye jooy nañ ci jooy yu metti loolu nag moom xool bu Sëñ Tuubaa nekkul mun mënut nekk moom na ma ne bu fekk Sëñ Tuubaa taxutoon du demee noonu kon nag loolu ñoo ngi la koy seeral di la yalwaan nit nga ñaanal la ñu sëñ Bassirou ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine gii mu àndal ñëw fii di la teeru ngir Sëñ tuwaa te wax ne nañ ñëw teeru la ko ndax gan gu gu gu fonk la nga ñaanal leen ci ci barkeb Sëriñ Tuubaa suñu borom musal leen te aar leen te seen yéene ci Sëriñ Tuubaa àgg xaj na kàddu yu tëlee ku tëlee wax la waaye xol bi nag li ci ne mënu si ko a ñàkk wax lii rek mooy suñuy kàddu sëñ bi ñoo ngi koy seeral ngir sëñ Tuubaa di la ko seeral it di bëgg nga seeral nu ko ci kanam kookee jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatuhu noo ngi nuyu kilifa gu baax gu tedd gi ñu nekk ci kanamam di sëriñ Hamsatu Mbakke mu Cheikh Abdou di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko te wéral ko yàggal kilifaam yu baax yi ci kanamam ba li ñu naal lépp yéene koo liggéeyal sëriñ Touba ci toolam bi ñu defee ko niñ ko bëggee euh, boo leen gisee jataay bii nag kàddu yi nuy ubbee day jataayub mbégte da jataayub sant ndax sëriñ Serigne Hamsatou Mbacké mu baax mii moom Cheikh Abdoul laxat moo ñëw seet si doomam seet si taalibeem seet si xaritam. sëriñ Basiiru Mbakke xalifa sëriñ Cheikh Thioro moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Xaadimu Rasuul seet si ko nag ci jéego yoo xam ne yooyu sant la ak gërëm ak ñaan ngir way juróoma sant na ko ci aw doxiinam wi sëñ Bas am ak melo yu mu yor waaye sant ko ci liggéey bu réy bi nga xam ne dafa nekk ci loxoy sëriñ Hamsatu tam di ci liggéeyal sëriñ Touba mu doyloo ci doomam ji yaakaar ko ci yëkkati ko teg ko ci loxoom te diggante bi lu mu gàtt gàtt mu rafetal ci rafetal goo xam ne yóbbu ko foo xam ne sëñ bi neena na yaakaaram jëpp loolu sotti ko woon na ci loolu tax nag tey mu ñëw ànd ak ñii mu àndal sama nijaay sëñ Fallou Gala Sylla ak sëñ Xaadim Diouf ak sëriñ Baara Jaxate kilifa yu baax yii la àndal ñëw seet ci sëriñ bi bi mu ñëwee it sëriñ bi xam na ne bu wootee ne sëñ bi fii ñëw ñëpp danañ fi daje waaye bañ a sëñ bi ak bañ yàggaayu jataaya tax mu yëgal ko ñenn rek ci bokk yi ak ñenn ci taalibe yi moo tax sëriñ Mourtada Mbacké mii moom sëñ Abdoul Khadim moom Cheikh Amadou Lamine Bara nga xam ne ñoom du ñaari jëmm moog sëriñ Bassirou kenn lañ mu ñëw fekkee jataay bii ñëw toog te war a yor kàddoom ak sëriñ Khadim Mbacké mais moom sëriñ Balla Dior surtout sëñ Balla ñëw fekk sëñ Moustapha Guèye moom it bokk ci sëti sëriñ Touba yi di sëñ Mabé Guèye ak sëñ Mouhamadul Makhtar Lo ak sëriñ Abdourahmane Mbacké mais nga xam ne moomit it euh, maamam ci ñu toppoon sëriñ bi la moom it mu doon wëlleeru sëriñ bi di ab euh, xaritam sëñ Ibra Fari nekk maamam moom it mu yëgal ko jataay bi mu ñëw fekke si ko sëriñ Mahmadan loo ak kilifa yi ñëw fekke si jataay bi yëpp ak bokki taalib yi ngeen gis ñoom it nekk ci kër gi muy taalibe da sëriñ bi yëpp nga xam dañoo ànd ak moom ci liggéey bi muy liggéey sëriñ Touba waaye it njaboot gi ci kër gi mënoo leen a xàmmeeg yi ñoom it ci ak laxasaayu ak takku ak nekk ci toolub liggéeyal sëriñ bi lépp rek ngir yëg lu rëy lii nga xam ne def nga ko fekke si jataay bi tey jii sëriñ bi nag di la sant bu baax di la ci gërëm soxna it ñoom it dañoo jaayante ñëw ànd ak ñoom liggéey muy waa sëñ bi. ñoo nekk ci njaboot gi waaye ñu jaay lépp ñoom it ay taalibe waa xuddaam sëñ Modou Jaw ngeenee toog sëñ Modou Diop Jaw be moom it li tax mu ñëw it tànk yooyu rek ko andi ndax ku ne xamoon diggante bi sëriñ Bachir waaye kuréel bi ñor gun leen ñor tax na ba biñ xamee ne yaa ngi jëm si fii dañ xam ne seen kilifaa ngi ñëw. waaye mi ngi fekk si koo xam ne jëwriñ la jum leen booleel ci liggéey bi sëñ Basiiru nag day sant bu baax tey gërëm dafa wax ne lu fi nekk lu ne yaa ko moom ndax lu fi nekk sëñ Tuubaa ko fi indi te kon bët yooyu la lay xoole muy sëñ Tuubaa la lay xoole kon bu sëñ Tuubaa ñëwee fi bérébam dafa nekk lépp da ko war a yëkkati jox mu wax it ne moom bu la gisee ak bu la gisut a yem lim jàpp mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa la rek te lu mu xas jàpp ci sëñ Tuubaa loola la jàpp wax na it sant na la bu baax ndax nga am payuk sëñ bi bëggul nga am ngërëmul sëñ bi du la liggéeyloo te nee na xam na ne lii nga ko sant am na ñu ko gën a man ci ak jot am na ñu ko gën a man ci yitte waaye yaakaar la joo am ci moom rek ak wóolu goo ko jox loola nag nee na la cay jiitu nga ñaanal ko ba li nga ci yaakaar mu defee ko ni nga ko bëggee waaye dana ko fas yéene ànd ak yow ndax ndigal la lum jàpp loo xam ne ñor na ko te liggéeyal Serigne Touba la ci moom boo ko woon yónni ko leneen it nee na loolee ni ni muy doxee lii loola la koy doxee kon dafa mel ni tool la boo xam ne liggéeyal Serigne Touba la ci nekk sant la ci lépp nag ndax taxawaay bi mate ko Mbàkke nun ñi noo ngi yëg euh, kaddu yi sant sëñ bi dafa jëm ci sëñ Mourtala mais dana ko yëkkati ci bokk yi ak ñëpp waaye nun ñi dañ lay seereelaat ay kaddu yu sant sëriñ Bachirou Mbàkke mi te danañ ci mat seere nag ndax sëñ Touba mii nu topp njariñ leen ko toppe ndax ba mu waxee ñëw leen ànd ak man it dana danaa leen jariñ te du ma leen lor looloo tax nit ñi fàtte ay ndey fàtte ay baay fàtte ay dëkk ñëw ci sëriñ Touba te ku nekk defal na la lu lu loo mënta am fa nga bàyyi ko te mënoo mënoo am ku la ko wutalit sëñ bas mi it jikko jooju rek la yor léegi laa ko wax sëñ Abdourahmane mais ma ne ko sëñ bas nit ñi dañoo toll ci di fay ndax jikkoo ko wone xaw ma ku ko xamul xaw ma ku joxe soowul ak moom waaye man de ba ban bam ñuy jàpp ñu jàppante ak fii lu toll nii xaw ma lu ci yokk xaw ma lu ci wàññiku ndax wenn jàppee rek la lay jàpp muy jëmi sëñ Tuubaa te képp ku ànd ak moom it da nga yëg ne ak dëgg ak fonk nit ak xam sa bopp ak nekk ca la war loolu da nga ko xam sëriñ Bachir loolu nag na nga ko ñaanal loolu baax ndax jamono bii nu nekk day jamono bu jafee melen nii mu mel ngir ñiy xëppe ak ñiy xuppe te moom kenn mënu koo xupp ndax wakiilu na ci yàlla te doyloo na Serigne Touba kenn mënu koo xupp da xëpp dara it te it misaal la ci moom mii di sëriñ Bassirou model la boo xam ne ñëpp war nañoo xool ci aw doxinam moom ci ñoñ Serigne Touba ci ak njaboot ndax amul genn benn bëtam bu mu teg lu dul lu lu luy taaral doxinu sëriñ bi te loolu dara jiitu ci xam-xam damay wax ne lu jafe la def ndax léegi la la ko sëriñ aboo mii rakkam di seereel bi fi way juróom di bàyyi ko kenn ku ci nekk ci ay rakkam ci jàng alxuraan nga toll te ñoom dañ koy wax waxtu wu nekk dañoo wax ne bis génn bi mu njëkk a génn ginnaaw way juróom mooy seeti daara yi doomi baayam yi nekk tey jii taxawu na leen ba fu nit di toll ci xam-xam nga war faa yegg egg nga fa noonu ci xam-xam sëñ Abdoul Aziz a ngi nii di rakkam moo yor tey commune rurale bu Daaru bu Mbacke Kajoor kon tey am na jikko yoo xam ne ak melo yoo xam ne bu nekkuloon ci ñoom am na confiance xam daje ci ñoom te loolu moom mii moo ko def seen ginnaaw way jur waaye ba mu ko defee toogul da koo def ba noppi nag moom ci ginnaaw nekk way juram ci la takk ndiggam takk laxasaayam jàngi ba am doctorat kon loolu beneen yitte la te boobu bu doon mbooloo mu mi ngi fi bu dee ñu bu dee alal ju muy waaye ba mu jàngee ba ñëwee da koo jëfee ndax Serigne Saliou Mbacké mu baaxam ba mu ko joxee ca saam ay terrain yu bari na ko so wàll ci Touba sëñ Bass jaayu ci nit benn pakk dafa jël pakk yëpp joxe ko ngir sëñ Touba waaye da ndimbal la ca dolliku mooy def fa école def fa daara ba noppi nekk directeur école bi ba noppi nekk sëriñu daara bi. di jàngale ca daara ja di jàngale ca école ba di defar aw nit di leen yar te dëkk nit ñi melokaan woowu loolu nag ku ko taxawee ci ci ci jamono jii. warees na koo seere ci ci sa kanam looloo waral boo gisee nit ñi mel ci moom nii ñu mel loolu la ko sabab mooy sëñ bas boo boo jaxasoog moom ak gën a jub ak gën a baax gën a xam fi nga teg sànq la lay jëriñ te woyef geeg yërmande ji nag mate ko yàlla xam na ne bët bu set dafa may woo na ma lan mooy doy lu ñu war a def ma ne ko ah mu ne sëñ Touba ndax baat bi mu lay jëkk a wax mooy tax mooy li fi ne sëñ Touba ku fi indi te sëñ Touba fii ñëw ku la fonk la nag ku la naw la ku la bëgg la ku la wormaal la waaw ku la fonk te melo woowu mu la fonke nawee la ko sëñ Mourtada nga ne mën na maa seere amul kenn ku bokk Cheikh Maodo Lamine baa nga bokk moom Serigne Touba nga mën a wax ne sëñ Bass man mas naa toogandoo yow ci kaw wala sëñ Bass mas naa sol mbaxal nuyuwaale la ji kenn ku ne mën naa seere loolu ci ci ci ci ñoom ñii te defe kenn gënu koo jege Cheikh Mamadou Mourtada mi ci ak taqoo akuk jege waaye jikko ji ma seeral lépp ñu képp koo xam ne daal defe naa juuyoo ak Serigne bas wala mënoo nekk ak moom am na jenn jikko ju xaw a nekk ci yow ju des ci ak dëggu ak ngeme dëgg waaye moom ñeme na wéet ñeme na dëgg te tuddul kenn tooñul kenn ku am engagement la it nag te du wor te du wax ci kaw wax ci suuf wenn melokaan wi la te loolu man mën naa koo seere ci àdduna bépp ndax li tax ñu takkoog moom mooy fekk fam nu fekk ak nu mu nu jàppee ak nu ñu jàppalee ak nu nu dimbalee kon nag noo ngi lay seeral ne na nga nu ko ñaanalal sant na la nag kàddu yi moom sëñ Mourtala dama ko wax léegi na ko ku nekk na nga toll la jëm fa yow noonu lay toll wala mu jege ko man kàddu yi sëñ Bass yu jëm sëñ Mourtala sëñ mënu ma ko sëñ am sa mënu ko wax waaye ñun nag sañ na naa te waxaale naa bokki taalibe yi fi nekk yëpp ñu taalibe yi ñëpp sant sëñ Bassirou te loolu li nga koy gën a xamee mooy taalibe yi boppam yi kenn ku ci nekk nawloo gim la nawloo day jël njabootam dugal ko ci biir taalibe yi te boo waxee lu muy wax mu naan xooluma alal xooluma nangam li ma xool mooy sëñ Tuubaa ju wóor lay xool ay doomam jël na leen jox leen ay taalibeem te li gën a yéeme keroog bi ñu leen muuree maa ngi taxaw da leen da dugal ci oto moo leen yóbbul boppam te kenn ku njëkk moo la jox taalibe ba tànnal la ko am na ci ñoo xam ne bis bi ñuy joxee soxna yi nga door a xam ki nga moom ku mu doon kon ñim ñi muy joxe yilif na leen waaye ñam leen koy joxit yilif na leen wóolu leen te loolu ñëpp a daje fi tey kon jërëjëf Mbacke sëriñ Xamsatu Mbacke sa njaboot ñoo yëkkati seen kaddu jaarale ko ci kenn ci yow di sa doom di sa jëwrin sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Cheikh Thioro Mbàkke muy kàddu yi sant ak kàddu yi ngërëm yoo xam ne daf koy yëkkati du ci aw turam la koy yëkkatee waaye mu ngi koy yëkkati ci turu njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke gépp ndax nee jataay bii nga am fii tey fi mu toll ci moom mooy sëriñ Abdoul Ahad Mbacké mu ñëw seet sëriñ Serigne Bara foofu la toll ci moom kon lii nga def defaloo ko Serigne Bassirou waaye njabootuk Serigne Bara Mbacké gépp nga ko defal njabootuk sëriñ Touba gépp nga ko defal ndax ku xamoon taxawaayu sëriñ Abdoul Ahad ci njabootu Cheikhul Khadim xamoon diggante sëriñ Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadul Amin sëriñ Fallou Galas mi ngi may wax léegi ni bi ni ñëw yaa ko wax ni ko sëriñ Baara moo ma njëkk a tudde doom moo ma jox njëkk a jox mbubb moo ma njëkk a jox junni. loola kon ab taxawaay la woon boo xam ne taxawaay bu ràññeeku la woon. moo ko njëkk a bindal téere loola kon ab taxawaay la boo xam ne doxoon na diggante sëriñ Baara ak Cheikh Mouhamadul Amin loola nag ñun ñii tuut tànk lañ ciy jànge muy nawlonte goo xam ne doxoon nañ njabootu Cheikhul Khadim kon ñu nawlonte woon lan woon ndax bu fekkoon ni ci at la sëriñ Baara magee na ko loo xam ne waaye ñoom fa ni gis ku ne ci sa moroom sëriñ Touba la ñu xool ci yow kon nawlonte googee moo am nawlonte googeen mooy ni sa jéego tey yii ndax kat mënoon nga ni sëriñ ba sama doom la mën na maa yebal sama njaboot wala kenn ci taalibe yi ñu dem santal ma ko waaye yëg nga la doxoon ci diggante mag ñi nga ñëw ngir feddali loola sëriñ bi nee na loolu réy na ci moom lool bisub tey bii daal bis la boo xam ne fekkee ne musul am bis bu toll nii ci moom ndax dayo bi mu toll ci moom nee na kon mi ngi ci sant di la gërëm di ñaan sunu borom tabaraka wa taala la sa way jur liggéeyaloon sëriñ Touba muy jàmbaari sëriñ Touba nga jóg teg sa tànk fa mu tegoon tànkam yàlla na la sunu borom dimbale ba ndam la sëriñ Abdul Ahad amoon ci liggéey sëriñ Touba sunu borom defal la ko te yaa nga ca yoon te wàccoo ko sëriñ bi nee na mi ngi lay sant di la gërëm di rëylu lool lii nga xam ne du ni da ko lu ko daloo war waaye lu ko jomb la waaye nag sëriñ Touba képp ku ànd ak moom ku ko defal la nga man mu defalul la jomb sëriñ bas day lam man mi ngi koy jéem ci sëriñ Touba waaye xam nañ tey sëriñ Touba fay na ko loo xam ne jomb na ko ndax sëriñ Abdoulaat jóge këram ñëw fekk si ko fii fekk sëriñ Baara loolu jomb na ko moom waaye nag nee na loolu lépp ci liggéey sëriñ Touba la mi ngi lay feddali laxasaayam ak pas-pasam ànd ci sa ginnaaw fas yéene liggéey sëriñ Touba ndax nee na amul benn bëgg-bëgg amul benn yéene dundam ak dalam ak yëngutoom lépp jox na ko sëriñ Touba lépp ci liggéey sëñ Touba la ko la ko fas yéene jeexal kon lépp lu mu gis muy liggéey sëñ Touba fas naa nekk ca loola joxe ca léppam te xam na ni fii nga teg sa tànk dara yittee lu dul liggéey sëñ Touba kon fas naa ànd ak yéen ci liggéey bii nga xam ne yaa ngi koy di ñaan nga ñaanal ko nag sunu borom defal ko ak musal ko ba li nga xam ne yéene nga ci moom ba jiital ko ci mbooloo mii nga xam ne mbooloom liggéeyal sëñ Touba la sunu borom defal ko ci lu kawe njortam la nga ca yéene woon sunu borom matal la ko ci barke Serigne Touba sëriñ bi daal nee na sant na gërëm na bu baax te lii ngay def it lii nga koo defloo xam na ni da nga koo bëgg a dimbale. ndax Serigne Touba kun la kaay liggéey Serigne Touba dafa laa bëgg dimbale ndax Serigne Moustapha Guèye yarawaay dem naa fa ànd ko sëtam sëñ Abdou yarawaay moom sëñ Murtada mu nettali ñu ni Serigne Touba am na bis mu toog togg ci loxoom ab laax bi mu noppee sëpp ci ñaari baaraamam. bi mu noppee ni mbooloo mi lii xam ngeen lu ko wund ñu ni ko déedéet Mbàkke baaxee ñu ko mu ni leen sunu borom moo ma xamal ni ku la liggéeyal jariñu moo tax mën a liggéey sa bopp ngir jariñu kon ku la kon képp koo xam ne yaa ngi maam liggéeyaloon na sëriñ Touba dafa la bëgg nga jariñu kon sëriñ bi nee na moom amee la ko cant moom moo la meeg cant ndax yaa ko jóg ngir liggéeyaloo ko sëriñ Touba kon nee na mi ngi la ciy sant di ñaan suñu borom mu dëgëral la yàggale la ci sunu kanam te lii ngay def nga tasee ngërëmu sëriñ Touba su mu defal ci ndam pakk yi bëri na nag noon yi bëri na pexe yi bëri na waaye yàlla na la sa maam teel boppam ci kattanu Serigne Touba nee na sant na la bu baax gërëm na la lii rëy na ci moom mi ngi santit ñi nga xam ne ñoom nga ko booleel ndax jiitaluñ ko mën a dee ko fakkasal ñim àndal ànd naak ñoom àndin wu rafet lépp loo xam ne joxañ na ko nekk na ca ànd naak ànd nañ ko moom na nga xam ne la gën a rafete nee na kon mi ngi sant ñi nga xam ne ñoom nga ko booleel muy sëñ mët Diop ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp ci liggéey bi mi ngi leen sant di leen gërëm bis bi nag rëy na ci moom lool daanaka moo tax mu ni ma da ngay jël sama kàddu ndax mënuma ci yëkkati kàddu ndax sama xol tooy na fi mu toll ci man sori na ci man lool kon it man nga xam ne Mbàkke fi mu toll ci moom la toll ci man rek moo tax la ma war a wax mënuma koo wax gëlëm naa ma lu may wax ndax mbégte moo nu jàpp kon lépp lu ci dëng nga xam ne ci si man mii la dëngee waaye nam ko bëggee woon moom sëriñ Basiiru lépp lu rafet lay doon lépp lu mat lay doon lépp lu jaar aw yoon lay doon kon lu ci dëng rek Mbàkke nga xam ne ci man mii la dëngee ci man mii la matadee nee na mi ngi sant mbokki taalibi boppam yi nga xam ne mooy seen jëwriñ ci kër sëriñ Baara ji seen jëwriñ ci kër sëriñ Cheikh Thioro ndax lépp lu mu yëkkati ànd nañ ko ak moom muy ay taalibe muy ay rakk njaboot sëriñ Cheikh Thioro ak njaboot sëriñ Baara gépp man na ci sama turu bopp ma lay seeral ni ko sëñ Gànna waxee ba ñuy tuut tànk ba léegi ñoo ànd te sama ànd ak moom tekkiwul na ma koy faral jox taalibe neen du sama xarit du ma xaritam loolu nag ku ko dégg dana la jaaxal lool waaye ku xamoon Serigne Abdoul Khadim xam Serigne Cheikh coro xam ne seenu njaboot bu àndee loolu du hasard kon dañuy mottali kóllëre diggante Serigne Abdoul Khadim ak Serigne Cheikh coro dama ci wax lu yéeme lool ndax ba ñuy nekk ci àddina mosu ñoo tàggoo Serigne Cheikh Thioro ab taawam Serigne Abdoul Khadim la ko tuddee bi biñ fi jógee nekk àjjanaat ñoo bokk fenn fu nekk ñu seen i kër sësaloo ci àjjana muy barab yee ñoo fa bokk nekk moom ak sëñ seen Cheikh Thioro ak sëñ Abdoul Khadim kon loolu ànd boobee moom la ñuy jéem a mottali man ak sëriñ Basiru mii te ku xam sëriñ Basiru xam na ma fu ma teew maa ko fa teewal fu mu teew maak moom ma fa teewal damay faral di wax ni yàlla na ma suñu borom dimbala ma nekk ci aw yiw nekk ci lu baax ndax lu ma nekkoon ci safaan yi sëñ Bas ma ca fekk non foofu la toll ci man ndax mottali kuréel googu kon ñu ngi lay ñu ngi lay koy seereel di la seereel ab taxawam ci njabootu Serigne Bara gépp rawatina fii nga xam ne mooy seen buntu kër Serigne Cheikh Thioro Serigne Abo junj na la ko léegi. bi fi woy juram di jóge man ak moom ñu ngi jàng booba ñu ngi toll ci classe première la ñu toll maanaam am na am nañ brevet ba toll ci classe ñaareel bi. booba la woy juróom làqu mu am lu ko metti lool ngir bëgg a eggalam jàngam ma ne ko dey ginnaaw lii moo la dab demal eh, demal rek nga taw te jataay ba bi mu ñëwee loolu la ma ci bëgg nettale rek muy njaboot gii ndax booba ma fanweer itam matagul ay rakam kenn amugu ci ñaar fukki yu mat nekk ay tuut tànk ñëpp moo jël jàngal leen ba ñoom ñëpp ñu denc ak réer fi ñu toll koo ci gis ma ngay taxawee loo xam ne ci diine lu ab lu doomi soxna war taxawee mën nañ koo taxawee te jëmmam jii rek la te mën na ni booba tuut tànk la wërta mën a loola waaye ngorom ak fullaam ak bëggam lu baax ak gëmmam Sëriñ Tuubaa moo tax mu taxawee loola tey loola yàqul yéen a jëm amoon ci xam-xam mu eggale ko ni ko sëñ Gana waxee jàng na ba eggal am jàngam lépp ci pas-pasam ndax lu jafe la jiite njaboot nekk sa xalifa kër say baay eggale sam njàng ba fa nga ko war a eggale wëlbatikuwaat futteeku taalibe yi sax suñu ba maa sant ndax xam nan ko ba saa su ne dañuy wax ni sëriñ parce que la ko gën a yitteel mooy liggéey sëriñ tubaab yi muy jàng ak jàngale nga xam ne fu mu mën di nekk ca loola lay nekk ni ko sëriñ Gànn waxee léegi loolu dal ay kàddu yu ñu bëggoon a seere ci moom jëmm ji tedd ji la muy sëriñ Bassirou donte nga matuñu seere ci moom ñu ngi koy sant di ko gërëm ñaan suñu borom mu guddal ko moom it ba lim yéene liggéeyal maamu matal ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lépp lu ci dëng nag sëñ ñu ngi koy jéggalu sunu xol moo tooy te it lii rëy ci ñun lool moo tax lan bëgg a wax mënuñu ko wax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa damay ubbil sëriñ bi ay kàddu rek waaye li mu bëgg a wax tam ne ci ab xolam donte dana jafe mu tudd ko ci làmmiñat waaye dana jaare ci aw làmmiñam ma jottali leen ko waaye damay seere ay kàddu rek yu néew yoo xam ne e, sëriñ bi waxoon na ma ko lu jiitu jataay bii mooy bi ñu wooree daf ma wax ne ma sëñ Bas dey du ma ko woo téléphone rek naan ko siyaare naa la ci kori gi wala mu di ma woo naan ma bal maaq damaa bëgg a jóg samay tànk dem ba àgg balu ko ndax teg naa ko ab coono te maa ko ameel àq kon damay dem ba këram ma balu ko àq waaye sant ko fayit nag waaye loolu nag ma dimbali rek mu doon ngoon soo xam ne dama koy woo rek na ko danaa naan si kafe nga xam ne man dong lay doon ba ma ko wooyee jot ko xamoon naa ne sëñ dana ma jot ci la ma sëñ Gana jot ndax xam naa ne lu dugg ci moom dana dem ci nopp sëñ ja sëñ Gana na daal maa lay ñaan sëñ bi fomm ko maa ñaan ñu fomm ko ba alxames ndax dimanche daa xat te sëñ Bass xam naa yéeneem eh, te bu sëñ am sa cofee li muy defit sëñ Touba mooy ñëw kër sëñ Baara te xam naa ne noonu la ko sëñ Bass sëñ Bass di jàppe jàpp na sëñ am saay ñëw daa jàpp ne sëñ Touba ñëw eh, mu mel na nag kàddu yi nga sëñ wax tam teg ci tànkam jaayante ci génn àdduna ak way juram jàngi xam-xam àggale ci xam-xam mottali àlliwéy ay rakam ba mu àgg mu ñëw loole lépp doyoon ko mu futteekuwaat Serigne Touba jox ko ay teere mu mu maye lenn la lenn la mu def fa daara loolu ci moog way juróom yi ñoo ko bokkule. yaakaar naa ne kenn du mas a dégg na sëñ am saa jaay terrain sangam te li jaar ci loxoom ci ay terrain mat na ñaari junniy terrain lépp sëñ Touba jox ko ko mu joxe ko ngir yàlla. waaye loolu sëñ Abdourahman mais nijaayam di sama nijaay di sëñ Xaadim Mbay dama cee wax baat bu yéeme barki démb nee na bi mu jaayanteeg sëñ Touba di jàngale ci dëkk bi Xaadim Mbay oustaz 1975 nee na laa jaayanteeg sëñ Touba ne ko fas naa yéene duutuma génn Touba dama lay jàngaleel xam-xam nee na ba may jàngale ci kër sëñ Abibu bay jàngale Masalik nee na ci laa jëm ci barabub sëñ Touba ba nag wax ak moom li may wax ak moom waaye nee na diir bu gàtt xam naa ne sëñ Touba nangu na jàngale mi ndax sëñ Munta sëñ Murtala daf maa woo jox ma doomam ju ñuy wax Mahmadan na ma nag daa am këri sëñ Touba yu ma tàmbali ci bitim réew ma bëggoon ci sa sa njàng mii laa koy tàmbalee bëggoon nga jox ma téeméeri kaset ma yóbbu ko Espagne nee na ma xam ne kon ginnaaw sëñ Touba may laaj samam jàngale nangu na la ma jaayanteeg moom. nee na nag sëñ sëñ Abibu woo ma euh, na ma xaadim day dama sant yàlla sant sëñ tubaa di la ko seereel mu naa mu ne ko njàngale mii may def dama am bi sëriñ bi wax ne day dox ci doxu dexu dexu yàjjin gi ci gi ci ndar nee na waxtu takkusaan mu mu yónni ndaw na ko demal wool ma sëñ Mor dem nee na ñu wooyi sëñ moor dem mu ñëw ci wetu sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko lii ma la doon doyekat sama borom may na ko far bi ma lay woo damaa amoon yéene ndax ba may sanc sama dëkk beekat defoon fa mbaar ne ca ma di jàngale rek ma doon sama yéene waaye nag ma bëggoon la faa yebal nga ma fa waaye bi nga daataaka ñëw sama borom nee na ma li nga doon bëgg ca may naa la ko des na diir bu gàtt danaa la fa defal ndaw yoo xam ne fu waay ŋàbbati say kaggu buñ la ko tëralul doo gis ko la ko tëralal kon loolu day mel ne ñaan googu suñu borom nangoo na ko ci ci yow ak ñi mel ne yow nee na daal di may joxoñ daal ko ne ba ci lii ngay séen ma ci duy sama satale gi muy dex gi mu naa ko may naa ma ko ca Touba ba teg naa ci sama bët kon kon loolu day tegtale ne lépp lu mu bëgg ci dëkk bi rek noonu la ko ci sëñ Touba di fekkee kon nag noonu nga xam ne ni la amee woon yéene ba woote woon ngir ñu ñëw ci dëkk bi di ko fi jàngaleel mu amoon xalaat def fi mbaarum gi taxam moome ne ci mbaar ma di fa jàngale boo ko wuutee ci loolu da ngaa a sant yàlla bu baax a baax ndax loolu mooy mi sëñ Touba bëggoon a nekkee ci nga nekkal ko fi jotaay bii Eh, day jataayub sant yàlla ndax liggéey bii ñu seq muy liggéeyub Xudaamul Xadiim eh, barki démb dañuy def émission ci Serigne Saliou am ku woo Serigne bi ne ko sa turandoo sëñ am satu daa àggoon ci Serigne Touba ba duutu waxate boppam am satu jaxate am satul xadim la doon tudde woon boppam. sëñ am sa daal ne bis na ko tey nag ginnaaw Xudaamul Xadiim am am satul xadim nañ ko ci daal di roolig moom ndax kooko xam naa ne liggéeyal liggéeyal yàlla rek ko ko ñoroon eh, waaye mu daan wax ne liggéey bii ma nekk kat yàlla nga dund ak yàlla nga dee laa ci yemale wet ci ak wet wéetali ko ci laa ci yemale su ma ci amee sama bëgg it kenn du dégg samay kàddu dutuñu dégg sama yëngut waaye li feeg amuma ko nag na leen wóor ne waxtu bu ne samay kàddu ngeen di ko dégg mooy leen li sëñ tubaa bëgg ci dëkkam bi daal moom dana ko fi am ñiy joor ay xeer sëñ tubaa it seeni xeer danañ ko bayee joor wala xeer wu ñëwati dana delluwaat ci ñoom loolu moom la am satu fas yéene liggéeyee waaye lii may def nag sëñ tubaa dong laa ciy ndax koo xam ne keroog ba ngay jóge ci sa kër wayjur Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jóge kër sëñ am Amsatu Jaxate jàng alxuraan ba noppi ñëw ci loxoom ñi ko seeree ngi nii toog Serigne am Serigne Abdoul Ahad dafa yabal Serigne Balla Fally Dieng na ko am Amsatu mais laa bëgg nga ñaanal ko waaye nag boo demee xamal ko na ko am na ngërëmul sëñ tubaa nee na sëñ Ballee ñëw Ballaa ñëwal boppam ci man na ma yow kat dam sëñ bi damaa wax ne naa la ñaanal sëñ Abdou Dieng sëñ Abdou Dieng Balla Fally na ko dama ne naa la ñaanal waaye bala ma laa ñaanal dag may ñaanal nee na mu ne ko yow lu ma lay ñaanal mu ne ko sëñ Ablaat moo ma wax ne am nga ngërëmul sëñ Touba sëñ bi tontuwu ko lenn lu weesu waaxu wuti sëñ bi mu jubee sëñ Ablaat sëñ Ablaat ne ko am satu xanaa da ngaa gis Abdou Dieng Balla Fally mu ne mu ne ko la wax de maa ko wax loolu kon am na ngërëmul sëñ tubaa waaye ba mu ko amee ba noppi nag na ko dama laa bëggalub sëriñ nag bëgg nga liggéey li yàlla bi nga amee ngërëmul sëñ Touba ba noppi dama bëgg nga dem liggéeyi ko ab sëriñ wutal te tànnal naa la sëñ Saliou njuréel gi ma amoon ci yow may naa la ko dem di liggéeyal sëriñ Saliou suba ak ngoon guddeeg bëccëg ba sëñ Saliou waxal ko boppam na ko yow da ngay sama njiglaay waaw da ngay sama njiglaay kon mu bind ci ay jël ci engagement am wax ne sama bakkan laa ci teg bakkanu sëñ Abdoul Ahad boobu day continuer di dund di wéy ba mu demee ba njàpp ne sëñ Abdoul Ahad nekkatu fi daa jëlaat beneen bakkanan roofaat ko ci ne ko continuer kon liggéey bi du taxaw moom it ba mu demee ba yëg ni coodaa ngi daa jëlaat beneen bakkanum sëñ Abdoul Ahad roofaat ko ci ne ko continuer noonu rek la di wéyee kon bakkan bu njëkk ba Cheikh Abdoul Ahad ba bi sëñ Amsatou ba mu kon yaakaar naa ne loolu rek la liggéey bi mën a demee mooy ngir baleel sëñ Touba pakk yi ak tilim tilim yi nga xam ne moo nekk ci dëkkub Touba bi ku ne xam ne ne adduna bi fu ne la ñuy attaqué sëñ Touba te ñi koy attaqué tekkiwuñ dara te sëñ Touba tooñut kenn ku seet wicc la weex tàll ëmbal ñëpp njariñ te ameelut kenn lor kon kooku ku koy attaqué dama wax ne jëw ku la ëppi bokk ak tooñ ku la man bokk na ci dof ak ñàkk jom ndax sëñ Touba ëpp doole ñëpp ëppi bokk ñëpp kon mënee su koo jëw te ku koy loolee nag moo tax sëriñ am satu waxtu wu ne mu teg ci tànkam teg ci bakkanam ba liggéey bi ba mu toogee ba mu yàgg mu ne man de liggéey bi damaa àgg foo xamante ne bii dama ko war a bàyyi ma ne ko soo ko bàyyee day lala sëñ Saliou waxoon danaa la ko wax ndax yow sëñ Saliou yaa xam ne dalaa woo ba nga ñëw mu ne am satu damaa bëgg a bàyyi jàngale ndax dama yaakaar ne damaa jigut nee na nga ne ko ah soo ko bàyyee day musiba am nee na daal di cay wax ak moom mu daal ne la loolu dëppoo naa njàngaleem sëñ Touba ndax damaa ubbi ci samay këyit fekk ci turu euh, këyitu sëñ Touba bind woo xam ne daf may digal may jàngale ci dëkk bi ak a yare kon kon alhamdulilahi rabil alamin waaye nag doo ci noppalu ndax yow dama lay def généralu daara ji nga jàppale ma ci njàngale mi kon yaakaar naa ne loolee yow itam bam ba ko waxee ma ne ko tànnoon ndaw lu la ci mën a wuutu mu ne ci liggéey booba mu ne ma samam xel de ci kenn la ne ma ne ko comme doon mu ne ma sëñ Basiru Coro ndax gis naa ne keroog ma njëkkee di attaqué Seydou moom bokk na ci xudaamul xadim waaye kàddu yom ci yëkkati woon ba fii sub tey nag damay gis ne waxtu wu ne day gën a dëggal ci pas-pasam boobu te booba li fiy sëti sëñ Tuubaa bari nañ mu natt ñëpp yow dong la xelam jàpp mu ñëw teg liggéey boobu ci sa loxo nga di ci liggéey liggéey boo xamante ne bii teg ko ci xam-xam teg ko ci ab yar teg ko ci ak dal ba noppi teg ko ci maslaa moo xamante ni bii lépp lu man a xew njariñul sëñ Tuubaa bi ngay njëkk e- exposé ba pare kooka su ca mënee jariñu fa lilahi lamdi bu ca mënta jariñu la ca topp nga soog ko caa teg wa zawirhum fil amri waaye fa isa asamta fa tawakkal nag loolu yaakaar naa ne liggéey bu am solo la loolu moo tax sëriñ bi bi muy jóg mu ne sëñ Baara Jaxate mii sëñ Xaadim Diouf waaye bu ko xamee woon noonu yaakaar naa ne ñëpp lay andi ndax dem na bi fii mu ne ma lépp lu des ak sëñ Saaliwu Mbàkke mais moom sëñ Baara ne way juram barki dem rek ñoo ànd dem Njaañ waaye daf ma daf ma ne léegi bi may ñëw daf ma na lépp lu ma dal ci ngan gi yaa ko teg ndax boo ma ko xamoon lii kër Sëñ Abdou gépp lay indi waaw waaye nag xamoon naa ne it man ki ngay seet si xër na yow mi koy seet si it am nga ci moom maande waaye lii yaakaar naa ne teraanga la joo xam ne jën teraanga féetewu ko kaw daa demee wax na ma nag ngan gi danaa ci teg ñeenti sart bu njëkk bi mooy mbooleem doomi sëñ Tuubaa yi sëñ Baara ci njëkk a tudde Sëñ Abdou doom te mage na ko lu mat fukki at juróom benn wala fukki at ak moo ko njëkk xottil mbubb moo ko njëkk a may ab junni ñaari doom moo ko njëkk may ab junni moo ko njëkk bindal ab téere daa demee ne yooyu nag amatul keneen koo xamante ne bi wuta nga ci sëñ baar kon sama digganteeg sëñ Bas mott li diggante sëñ Ablaat ak sëñ Baara rek laa ko jàppe kon yaakaar naa ne kàddu yooyu rek laa ne woon danaa ko ci jiital yi ci des ci kàddu ñu bàyyee ak sëriñ bi waaye daal na la wóor ne moom sëriñ moom xolam sedd na ci yow. mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne sëriñ Mouhamadul Basir sëriñ bi nee mi ngi lay nuyu. nee na di nuyu sa bokk yii di sëñ Mourtala ak sëñ Abdourahman ak sëñ Abdourahman ak ñi ngi fa bokkal teew ñëpp. di nag na nag di sant bu baax ci ñëw gi ñu fi ñëw. ngir feddali kóllëre. ngir feddali kóllëre. ak loo xam ne màggatut. ak yeesal loo xam ne màggatut. muy diggante sëñ Abdou Lahad ak sëñ Baara. ak sant nag ci sa jëf yu rëy yi nga def. ak sant nag muy teraanga ji. ak yitte ji. waaye sant la liggéey bu rëy nga nekk. ak waaye nag sant la nag ci liggéey bu rëy bi nga nekk. ndax lii mooy li sëñ Tuubaa bëgg ndax lii mooy li sëñ Tuubaa bëgg mooy jàng ak jàngale. boo ca boolee nag. ma ne soo ci doolee nag. nee na soo ci doolee nag. taxaw bii nga taxaw ci xuddaam. taxaw bii nga taxaw ci xuddaam. day gën a dalal sunu nee na day gën a dalal sunum xel. gën rafetal sunu njort. gën a rafetal sunu njort. ndax li nga tànn ngir liggéey ko muy jàng ak jàngale. ndax li tànn ngir liggéey ko muy jàng ak jàngale. mooy ndonal sëñ Touba. soo ci boolee nag di sellal dëkk bi. soo ci boolee nag di dëkk bi. di ko setal di ko setal. day gën a dolli yàqin. day gën a dolli suñu yàqin. kon dama lay wax. nee na kon dalay wax ne. laa taxaf wala taxsan innaka minal aminin. laa taxaf wala aminin. jàq bul na bul jàq bul tiit. sëñ Baara mooy assurance assurance ndax mooy amin. ndax mooy te bi bi mu ñëwee itam. sama listixaar bu gàtt. nee na ci listixaaram bu gàtt. dama bi ma taxawee ci bunt bi. nee na bi mu taxawee ci bunt bi. Abdourahman laa gis. nee na Abdourahman la gis. kooku ci rahmatu lañ ko xare. nee na kooku ci rahmatu lañ ko xare. gis tam Murtada. nee na gisit Murtada. muy Ridwaan. muy Ridwaan. ci lañ ko xare. ci lañ ko xare. gis Basir muy Bisra. gis gis Basir muy Bisra. kon day mel ni mbégte dana fi am. kon day mel ni mbégte dana fi am. ngërëm lañ fi am. ngërëm danañ ko fa amee. yërmande lañ fi am. yërmande lañ fi am. kon ne yàlla na daj mbooloo mépp ci barke sëñ Baara Mbacke. bu loolu jàllee sëñ Bas. nee na bu loolu jàllee sëñ Bas. maa ngi nee na mi ngi lay sant bu baax. di la gërëm bu baax. di la gërëm bu baax. sama fa sant yam. nee na ak cantam fa cant yam. fa la doore fa amul fu mu yam. ndax kat. ndax kat. ku yanu diis. soo ci yokkee ab kemb mu yëg ko. boo ci yokkee ab kemb dana ko yëg. waaye soo ko ca wàññee mu yëg ko. waaye boo ko ca wàññee mu yëg ko. li li mu yanu woon diis na lool. waaye la nga ma ca wàññil sant naa ci bu baax. nee na waaye la nga ko ca wàññil sant na ci bu baax. ndax man nga ko. matale nga ko. te nangu nga ko. te jëfe nga ko. te lu ci la. te lu ci nekk rek ab coono la. waaye nag Serigne Touba jaral na la ko. waaye nag Serigne Touba jaral na la ko. waaye nag yàlla nga dajeeg ngërëmam. ngërëmul Serigne Touba. aar la aar say bokk. tam aar la aar say bokk. aar say xarit. aar say xarit. aar képp ku la xam. aar ku la képp ko la xam. ci barke Seexul Xadim. ci barke Seexul Xadim. liggéey bi lii rek la. nee bi lii rek la. mooy ndonali. mooy ndonali. boo bokkee ci ndonali nag. boo bokkee ci ndonali nag. yàlla boole ci ña koy sàmm. yàlla boole la ci ña koy sàmm. da ngay sant borom ndonali. da ngay sant borom ndax moo la sàmmloo. muy Serigne Touba. ñépp a ko bëgg a ñëpp a ko bëgg a liggéeyal. waaye liggéey bii nga koy liggéeyal nag. waaye liggéey bii nga koy daa bokk ci yëpp solo. daa bokk ci yëpp solo. ndax fum masaa sanc. ndax fu mu masaa sanc. su fa mbooloo ma ñëwee mu daw wuti feneen. su masaa bari mu daw sanc feneen. te génn kër te génn kër la daan doon. loolu lépp ngir defar loolu lépp ngir defaroon nit ñi rek. ndax defar moom. ndax defar moom. la ci jiitu. la ci jiitu. mooy mooy mooy mooy mooy sumtun wu jooxun sax la ko waxee. nee na ni mu ko waxee rek sumtun wa jooxun. Mhm. Mhm. Mhm. wa sahrun wa uslatun an shuyuuxil wilaaya moo tax moo daan noppi noppi ci lépp la mu njëriñ ci lépp loo xam ne boo ko waxee njëriñ du ci bàyyi ko ak xiif bu yàgg ak xiif bu yàgg ndax ku rekk da ngay bajantu ndax ku rekk waaye bakkan moom waaye xawee xiif tuuti foo ko foo rek mu jaar fa ba ca ba ca topp mooy guddee nelaw. ba ca topp mooy guddee nelaw bàyyi nelaw rek. ak beru wéet googu sëñ Tuba ak beru googu nga xam ne moom la sëñ Tuba daan digle. yow nag yow nag. yaa ngi ci bu baax a baax. yaa ngi ci bu baax a baax. ndax xam-xamay sa ndax xam-xamay sa wétal. te ne xam-xam mooy xam-xam mooy lamp bi lay niital ba te xam-xam kat mooy lamp bi nga xam ne moo la man a niital ba doo tàbbi ci lëndëm. kon jàngal nañ la. kon jàngal nañ la. yar nañ la. yar nañ la. xam nga. xam nga. xàmmee nga. xàmmee nga. lii koo yanu. lii man mën nga koo yor. lii mën nga koo yor. te xat du damm. kon nag fa sëñ Tuubaa bëgg kon nag fa sëñ Tuubaa bëgg liggéey bi àgg fa. yàlla ngeen ko fa àggale. yàlla ngeen mucc ci ndop. yàlla ngeen mucc ci ndop. mucc mucc ci am ndap. ndok mooy lu lay jógee gannaaw. ndok mooy lu lay jógee ginnaaw. moo lay jógee kanam moo lay jógee kanam. mooy jógee am ndap moo lay jógee kanam ginnaaw. nee am ndap da lay ci ginnaaw te doo ko gis. kon nag yàlla na la yàlla musal ci ñaar yëpp. ba liggéeyub sëñ Tuubaa bii. Touba ay tabax ñoru ko de. nee na sëñ Touba ay tabax ñoru ko de. ay wata ñoru ko de. ay wata ñoru ko de. soowee bindeef yi rek ko ñor. soowee bindeef yi moo ko ñor. te lii nag da cee bokk. te lii nag da cee bokk. ndax yàq gi bari na. ndax yàq gi bari na. pom yi bari na. pom yi bari na. kàccoor gi bari na. kàccoor gi bari na. wax ju bon ji bari wax ju bon ji bari na. te lépp nag. te lépp nag. da ko war a effacer. da ngeen ko war a effacer. ba du agsi ba du agsi. ndax dañ ne. ndax dañ ne. koo topp la topp. koo ne la topp. fa ngeen jëm daa soriwut. fa ngeen jëm daa lu ne ñu koy wax sëñ Touba. lu ne ñu ngi koy wax sëñ Touba. lu ne ñu ngi koy wax njabootu sëñ Touba. lu ne ñu ngi koy wax njabootu sëñ Touba. day mel ne sax taalibe daa amatul xanaa. day daa amatul. ndax murit yi njëkk dañ fajal seen bopp. ndax murit yi njëkk ji dañ daa fajal seen bopp. waaye léegi kenn faj kenn du faj dañ naan damay tàggu sëñ bi te ak njaaxum kenn du ko tàggoo. wala ñu naan réew mi réewum nangam nangam la xanaa daa jëmee côté. xanaa nangam nangam daa jëmee côté. sëtu sëñ Basiru bi ñu doon dóor barki dem fu ñu ko teg. sëtu sëtu sëñ Basiru bi ñu doon bër ko teg. njabootu sëñ Basiru dañ doon ca koor gu daaw ga. njabootu te ñooñu di karaatara dum policier yi fu ñu ko teg. njabootu sëñ Basiru gan jàppoon daaw ca koor la woon. doomi sëñ Siidi la woon. ak doomi sëñ Muntaxa. ak ak doomi sëñ Cheikh Assoufal police yi leen bëggoon a sonal. police yi ñoo leen bëggoon a sonal. waaye yàlla ñoo ñu def ñu jàng xeex. waaye ñoo ba xaw a duuma ñooñu ñu daw. ba xaw a duuma ñooñu ñu daw. jàkkaay njëre ji lu fa xewoon. kon yëf day mel ni kenn xamul lu mu niru. kon yëf nag day bëgg a loo xam ne kenn du xam lu doon. bu ñu muñee nag ba sës ci miir la fay sës doo nga fay sës de. la fay sës doo nga nag. te kenn ci man dara bu boobaa. te kenn du bari nañ. taalibe seen pas-pas dëgër na. te seen pas gënal seen ndey. gënal leen seen baay. gënal leen seen gënal leen seen lépp. gënal ne. foo doxe foo doxe ba fekk ñuy wax ci sëñ bi lu jaaduwul ba fekk ñuy wax ci sëñ bi lu jaaduwul wala ñu koy teg ci jëmam ji lu jaaduwul ci jëmam ji ci war a nekk ci la koy saafara ba lu la cay fekk fekk la ca loolu mooy solution bi nun nag noo ngi toog di déglu nguur nun nag noo ngi toog di diisoo ak nguur di porter plainte di porter plainte daawut jëriñ dara te daawut jëriñ dara waaye bu tey bii bu tey dara ah. ah dana garaaw de bii ñu porté Omar nee na bii ñu porté Cheikh Omar Diagne bu fekkee ne yàlla dogal na jëriñu dara dana garaaw de. ndax taalibe yi kenn mën leen a téye. ndax taalibe ak seen pas-pas sëñ Tuubaa. nag ab junj la boo xam ne. na ko ñëpp déggandoo. na ko ñëpp déggandoo. sëñ Bas. sëñ Bas. loolu sab liggéey la. loolu sab liggéey la. dañoo wax ne. dañoo wax ne. ci kii bil hikma wal maw'izatil hasana lañ ko la la la kii bi dox. xuddaam wal maw'izatil hasana lay doxee. ci loolu nga nekk. wóor na ma ne yow. wóor na ma ne yow. doo wax lu jaaduwut. doo wax lu jaaduwut. doo ko def doo ko def. waaye mënoo téye taalibe yi. waaye mënoo téye taalibe yi. mënuma koo téye. mënuma koo téye ndax seen pas ba lool la loolu laa bëggoon a leeralaale. loolu laa bëggoon a leeralaale. danaa la sant. gën laa gërëm. gën laa gërëm. gën laa ñaanal. gën laa ñaanal. ci barke sëñ Baara. ci barke sëñ Baara. sëñ Tuubaa. barke sëñ Tuubaa. yàlla nga àgg rëkk. yàlla nga àgg rëkk. yàlla nga àgg rëkk. yéen ñëpp. sa bokk yëpp sax ci barke Seexul Xadim jërëjëf Mbacke yàlla jërëjëf. ñëpp